alaikum, Je me nomme euh, Ndoumbe Diouf, Madame Sarr, directrice du centre de formation professionnelle Pentium Africa, couture et restauration. Wow, école école de formation en couture et restauration dénommée Pentium Africa. Nous avons créé en 2000 biñ koy njëkk a créé ñu ngi nekkoon euh, Angle Mousse quartier yaaya Dabo ci kër yaaya Dabo sax ci boppam la école bi njëkkoon nekk idée bi ñu amoon nag ba créé ko dañu gis ni y avait beaucoup beaucoup de jeunes filles en ce moment yoo xamante ni ñi ngi doon toog jànguñu métier aussi français bi tamit euh, seen côté enseignement général demul ñu gis ni vraiment buñ fi créé lii dina mën may euh, occasion jeune ñu jàng am métier ngir ëllëg ñu mëna mënal seen euh, seen bopp bi ñuy créer école bi nag euh, si je me trompe pas man mi ko créé woon en tant que directrice boobu j'avais 19 ans mais créé Pencum Africa boobu j'avais 19 ans moi-même mais boobu nag fekk na man ma def sama formation fekk na ma def sama formation en coupe et couture ba am sama diplôme mu nekkoon métier bi nga xam ne nag bu ma bëggoon la bu ma yàgg bëgg la depuis ma nekk euh, jeune dama ko bëggoon macha allah amoon aussi yaakaar ne un jour viendra yàlla dina ma si may li ma li ma bëgg donc depuis lors ñu nekk ci 2000 ba vingt deux vingt 22 ans ñu ciy liggéey mais ñoo ngi ciy wax alhamdulilah rabbil alamin waaw école bi li mu génne ci promotion bari na. ndax boo xoolee ñu ngi ko créé 2000 2003 euh, ñu génnee suñu première euh, promotion boo xoolee 2003 ba 2022 chaque année benn promotion dina dina génn kon tey mën nañ wax ne suñu 19e promotion génn na 19 promotion génn na promotion bi ñuy préparé génne ni moom mooy suñu 20e euh, promotion bi nga xam ni ñoom ñoo war a pare seen formation fii ci biir euh, Pencum Africa. waaw fii nekk euh, moom macha allah équipe bu dynamique bu dynamique macha allah lañ fi nekkal euh, ci côté couture bi maa ngi fi nekk ak doyen Sène moom mi nga xam ne macha allah professeur de coupe bu mag la jaar ci école yu bëri jaar nekkoon Côte d'Ivoire ñëw yàlla may ko bu baax ci côté couture moderne. def na ci école bi 15 ans doyen la fi ñu yàgg di liggéey maa ngi fi nekk aussi ak euh, madame Fall moom aussi di styliste bu mag tubaar fakal la yàlla may ko ci moom mi ngi fi comme professeur euh, madame Ndiaye aussi di professeur euh, coupe moderne moom aussi macha allah nekk fi tamit ak Moustapha moom mi nga xam ne moom aussi prof de coupe et et couture et moi-même bi nga xam ne maa fi jàngale tout ce qui est technique de coupe ah ñu ànd fi nag ak stagiaire yi nga xamni tamit tamit fii la ñu def sen formation ba paré des fi di def sen stage amna même ñi nga xamni ne ñu ngi leen fi jël ñuy jàngalé ci école bi lañu lañu la ñu jëlat ñu leen comme professeur ñu nekkaat ci école bi di di jàngalé euh ah, ci côté restauration aussi ñi ngi fi nekk ak euh, madame Samb moom moo géré pâtisserie mom vraiment mu nekk chef pâtisserie fële ci Radisson donc nek fi aussi professeur de fi euh, aussi ak euh, madame Ndaw mom mi nga xamné vraiment mom mo fi plus lépp luy nutrition ak technique de cuisine ak diététique ndax mom nak machallah allah euh, cadre la amna licence am ci en diététique aussi nek ku maîtriser bu baax bu baax bu baax domaine restauration. ñu nek fi aussi ak euh, monsieur Fall mom mi nga xamante ni lépp luy techno resto salle mom moko fi gérer mom nga xamni vraiment mi ngi nek euh, King Fac Place euh, nga xamni ni mo fay profession l'ol la fay liguey nek fi tamit ak euh, monsieur Guèye mom mi nga xamni lepp lo xamni lu laal rek français ak anglais renforcement de capacité pour les élèves mom aussi mi ngi koy gérer ak ci côté informatique bi ndax nak au-delà de couture ak restauration dañ leen di initier en français et en anglais pour que ñu am facilité ndax nag euh, outil de travail la ëllëg daf leen di servir ci seen liggéey moo tax bu ñëwee même bu fekkee seen niveau euh, des na dañ leen di jël aussi dafa bokk tamit ci objectifu école bi ñun nekkul ne dañuy wax ne élève bi na am niveau bac wala na am niveau BFEM wala na am niveau en temps sixième même niveau zéro ku ko am boo ñëwee dinañ la former parce que bi may créer Pencum Africa aussi c'était ça c'était pour ñi nga xamné amuñu sens ci école ñu may leen sens jàngal leen métier ba ñu mën ci génn moo tax parfois professeurs yi dañu naan madame sar euh, cours yi ni muy méttee ndax xale yi nga xam ne amuñu niveau ma ne leen il faut qu'on gère parce que nag su fekkee école de formation professionnelle yépp dañu ne duñu jël ko amul niveau te y des gens yi nga xam ne peut-être année bi ñu inscrire école année boobu lañ leen di dàq am na ñi nga xam ne même des fois duñ ci sax jaar est-ce que ñooñu tamit société bi da leen war a comme ni leen école bi rejeter non man je me di damay xeex pour loolu damay damay combat pour loolu pour mën a jàppale ñooñu ñu mën a ñu mën a réussir parce que daf ñu doon sax arrivé bu ñu déposé loon suñu élèves yi pour ñu dem def ji CAP d'état ñi nga xam ne amuñu niveau bu ñu demee ci côté pratique bi dañuy jàll mais ci côté théorie bi comme c'est trop technique dañuy am tuuti ay ay lacunes parce que ñi ñuy defandool examen peut-être ñoom ñoo leen ëpp ëpp niveau français loolu aussi pour xeex ko pour que xale yi tamit bañ am diplôme quest kese même bu dee defuñu amuñu niveau français bu baax sax war nañ mën a am diplôme boo xamante ni quand même c'est reconnu euh, par l'État c'est pour cela ñu dem ut agrément wu chambre de métier nga xamante ne ni xale yi même bu fekkee amuñu niveau bu ñu génnee chambre de métier dina leen mën a signer seen diplôme yi ñu am diplôme bi nga xamante ni ni État dina ko reconnaître pour bu ëllëgee fu ñu dem ñu mën a ñu mën a liggéey euh, waaw ñu ñu am comme partenaire Pencum Africa vraiment bëri nañu ay euh, ay partenaires euh, ville de Guédiaway partenaire Pencum euh, Africa la ministère de la formation professionnelle duma partenaire sax parce que moom moy suñu tutelle chambre de métier de Dakar pareil suñu tutelle la parce que nak je peux dire xalé yi nga xamni nous avons niveau seen diplôme parce que tout ce qui est formation euh, artisanale ci def direction de l'artisanat aussi vraiment ci partenaires 3FPT aussi suñu ay euh, euh, partenaires lañu Nimzat Bisou Nimzat Bisou nga le maire moom mooy président PDG bi mu nekk ki nga xam ni partenaire Pencum Africa de longue date la chaque année bu ñuy génnee promotion ki nga xamante ne ni moom mooy mazoru promotion bi dina ko jox bijou en or donc kiy def loolu aussi mi ngi motiver mi ngi motiver bu baax élèves yi di motiver aussi équipe bi fi nekk kon Mor Gueye aussi ñu ngi koy wax euh, jaajëf.

Euh, ñu am stage délégué. liggéey te aussi, aussi dafay motiver dafay motiver xale faire te dafay jàppale école bi nous remercions euh, remercier nos partenaires nous duñu remercier monsieur le maire euh, Aliou Sall di lancer aussi appel monsieur le maire Ahmed Aïdara di ko aussi Pencum Africa mo ngi fi ci biir département Guédiaway di partenaire mairie ville pare aussi pour liguer ak moi, ci côté formation j'appelle ko ci aussi ci formation des jeunes filles surtout nag des jeunes yi nga xamante ne ay euh, situation demain noonu non, ñu war leen jàppale ci formation kon moom aussi nous ngi koy lancé appel ci côté boobu ndax nak amna li nga xamni jot na ko si junj waaye pour wax ko ne pencum Africa mom euh, pare ndax ñun euh, développement mo ñu ñor te mënoo wax euh, développement te amoo formation. Euh, si si liggéey mënul ñàkk jafe-jafe parce que lu tax du ñàkk jafe-jafe euh, école de formation professionnelle privée dañ koy tuddee privé centre de formation privé lañ ko mën a wax. mais tey boo boo posé loon sa bopp question effectif bi fi je peux dire la majeure partie du ñu sax fay. wala ñii bu ñuy fay 50 pour cent la ñuy fay ndax lan social. vraiment fii dañuy def social bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nag euh, dafa bëri tey ay jeunes filles yoo xam ne dañu toll ci jàng métier mënuñu jàng parce que seen parents yi seen loxo jotul seen euh, seen ginnaaw donc man tamit loolu dama ciy liggéey bu baax ba tax na dañuy am ay jafe-jafe ndax weer day dee li effective bi di fay mën na bañ a mën a fay sax personnel bi fi bi fi nekk côté boobu aussi personnel bi jàpp ci bu baax tamit nag ndax wax dëgg yàlla euh, équipe bi fi nekk Euh, seen seen seen xarañ ak seen xam-xam tey buñ la ko fayeeku woon dëgg rek tu peux dire que ne mënoo koo fay parce que damay wax ne xam-xam kenn mënu ko kenn mënu ko fay mais ñoom tamit bu ñu ñëwee vraiment dañu xam ne madame Sarr social lay def ñu ñëw ànd ak man ci social boobu di si di si jàpp donc dafay metti du yomb surtout que bu fekkente ne amoo subvention bu fekkente ne aussi euh, autorité locale yi fi nekk euh, du ñëpp ñooy jël seen loxo dugal ko si si si école bi jàppale la du ñàkk nga am ay ay ay jafe-jafe financier mais nag côté bobu dañ ci dañ ci sante bu baax di ci gërëm parrain wu école bi parce que euh, école bi dañ ko parrainé euh monsieur Cheikh Sar di sama borom kër donc euh, yalla bolé ñu euh ñu parrainé ko école bi def ko parrain wu école bi mu mat ko sekk nak mu mat ko sekk jël ko def ko comme yëfam macha allah te yëfam la tamit mom aussi meun naa ne bëri na bëri na lu bëri lu bëri lo xamni daf ñu jappalé ci école bi en tant que parrain bëri na situation yu bëri mom mo ñu ci euh, mom mo ñu jigéene vraiment makoy sante diko gërëm ndax euh, dañuy wax né dooley jën ndox dooley saxaar donc je peux dire moom mooy euh, première vraiment partenaire première parrain bi nga xamni fi fii si Bencum Africa tay lu bëri jooyuñu ko euh, ndax moom euh, am tamit yeneen bon volonté tey mën nañ citer ku mel ni Modou Mamour Ngom tey euh, boo jëlee tuuti micro bi dina am élément yoo xam ne fii si biir école bi bu ñu amee ren sens eggale seen formation c'est grâce à Modou Mamour Ngom parce que da ngay gis élèves yoo xam ne dañ leen di may bourse mais même bu ñu leen mayee bourse demi bourse lañ leen di may te bourse bi du jël en charge inscription ak tenue parfois élève day dem mairie ñu may ko bourse mu am problème sax jënd teneem wala def inscription vraiment mu nekk ki nga xam ne dañ koy solliciter ci loolu mais heure buñ ko ci solliciter parfois élève day ñëw ne la am naa bourse mais mënuma def le reste Euh, te da nga koy xool nga xam ni kii am na engagement bëgg na jàng doo xam nooy def da nga obligé dem utal ko parrain tey ku mel ni Modou pare parrainé nañ ko fi élèves yi nga xam ni moom moo leen jëlal en charge seen inscription jëlal leen en charge seen tenue ba ñu mën fi nekk tey di terminer seen euh, seen année. Euh, ñu ci remercier tamit Abdou Khafour Touré vraiment moom aussi mu def ci. acte am solo momit même chose que Modou de am fi ay éléments yi nga bourse am 50 je peux dire euh, ren Abdou khafour jël na fi deux quatre éléments deux coutures deux restauration yi nga xamni suis en 50 pour euh, formation euh, di remercier aussi Aline Badara Badou vraiment am na fi élève bi nga xam ne je peux dire ren bu du woon ak du fay jàngam du egg parce que dafa démarrer rek situation yi changé ki ko doon fayal am ay jafe-jafe param ñëw ne ma dafay arrêté te mu nekk benn élève bu bu brillante bi nga xam ni ku ko jàppale ëllëg dina doon dara vraiment bi loolu amee dama jóg man aussi def samay jéego woo ba du fay expliquer ko situation bi vraiment tegu si baat tegu ci baat dafa man ne man tout lan la mën a def lan laa mën a ko joxeel pour mu terminer formation mais bi ma ko waxee tegu si baat ci saa si la ko évaluer fay ko pour dimbali xale bi. di ci remercier aussi Racine Ba Racine Ba bi nekk Golf Sud moom aussi vraiment. amna fi am nañ fi benn cas bi nga xam ne xale bi Cambérène de la dëkk di jàngee ci école bi moom aussi yaayam jëlaloon ko lépp en charge dem ba ci biir situation jamono changé donc bi ma ko posé cas bi Racine moom aussi pare daf ma ni évaluer ñaata la ma wax ko mu fayal ko ba moo tax xale bi ren mu war a mën a terminer année loolu nag dañ ciy profité bu baax di ci remercier ki nga xam ne Pencum Africa du ko fàtte jamais jamais jamais muy le maire Kandidou Niass vraiment parce que bi ñuy créé Pencum Africa en 2000 euh, 2007 mu nekk euh, maire ñu liggéey ak mon li nga xamante ne nii commune je peux dire li mu doon appuyer école de formation professionnelle te du woon rek pencum Africa kese école de formation yépp la doon jàppale mais plus particulièrement pencum Africa parce que pencum Africa fi mu situé woon ak fi ex-mairie bi situé woon dafa dafa nekkoon benn donc demoon na ba école bi daf ko defoon comme école am dañu dañu dañu dañu sentiroon bu baax taxawaayu collectivité locale ci biir pencum Africa vraiment li ñu sentiroon ci Kalidou ci bi muy nekk maire ci structure bi je pense que si moom lañ ko gëj a gëj a sentir. waaw fi may fi may euh, terminer euh, di wax ne maa ngi remercier samay moo dama koy jeexalee ci ci remerciement di remercier équipe bi ma nekkal fii ci biir Pencum Africa di équipe bi nga xam ne macha allah euh, bu dynamique bu am engagement bu bëgg liggéey bi fii amul heure. amul heure xëy amul heure wàcc daanaka ku xëy rek jubal nga pencum Africa tant que li ñuy liggéey jeexul fii kenn du génn je peux dire dañuy même fanaan sax fii di liggéey tant que liggéey bi mi ngi taxaw kenn du wax ne dama sonn wala kenn du wax ni dama taay la preuve que journée tay bii ku nekk xam na ne journée bu metti déplacé wu la journée bu metti génn la tey dama xëy le matin di leen woo pour ñu programme journée taille. bi ñu ne non non madame Sar, parce que école bi tout le monde est là Ken, ken, ken, ken manqué où? 8 heures du matin là la wax te ku nekk xam ne dafa fanaan ne taw ba bër set pour nit ñi génn problème la donc équipe bi kenn manqué wul élèves yi kenn manqué wul ndax lan dafa am lu ñu def si ñoom. dafa am lu ñu def si ñoom dafa am di remercier aussi parents de yi si une confiance. parce que nag euh, damay wax parents d'élèves yu exceptionnel la ma yàlla booleel li nga xam ne dañu am ci man confiance bi nga xam ni euh, vraiment man sax parfois dafa may daf may xaw a dépasé macha allah waxuma la sax ci aspect formation bi mais éducation da nga ciy gis bu ñuy def dara ci seen kër yi sax man la ñuy woo pour ma diir sama doom ji defal ma ci moom lii walla waxal ma ci euh, waxal ma ci moom lii kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax ne pencum Africa moo ngi fii Géejawaay commune Wakhinane Nimzatt nekk ci terminus 49 euh, bi juste en face euh, euh, école privée Abdoulatif Gueye 50 mètres après foofu la ñu situé wu nekk fi di former xale yi ci restauration couture ak initiation en informatique kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp Assalamu alaikum, bonjour. Euh, je me présente, c'est Monsieur Fall, Baïmoumoud Fall, professeur au Pentium Africa. Bon, là nous sommes dans une formation professionnelle en restauration et en couture. Déjà, si cible cibles, ñi nga xamante ne tey jii nii euh, amuñu euh, à un niveau supérieur nous permettre leen ñu un am métier mën Bon, déjà, ce que je dirais en premier, moi, on a une directrice motivée. Et ce que nous devons Bon, comme d'habitude, dans hein, élèves, comme élève, élèves, le commencement, mais au fur et à mesure, après, on habitué. habitué bi nag mooy maanaam après ku ci nekk di nga xam caractère bi nga xamante ne moom la am ku ci nekk après di nga xool nan ngay mën a amee moom benn linkage pour mën leen a ordonner pour mën leen a ci yoon mais elles sont de vraies battantes tamit parce que ku ci nekk ci ñoom am na li nga xamante ni moom nga bëgg te ku ci nekk xam na li nga xamante ni moom nga ut ci école bi. asalaamaaleykum euh, maa ngi tudd Moussa Mbaye nekk responsable sinon au niveau de la Croix-Rouge département de Guédiawaye nekk aussi responsable ci kuréel gi ñuy wax personne âgée commune wax Wakhinane Nimzatt et départemental donc euh, bu ñuy ñëw ci taarixu école bi dinaa ci sawar wax dans la mesure où côtoyé naa leen ànd naa ak ñoom ci yenn exercice bu ci mel ni exercice physique ma yoroon xale yi. Euh, boobu ba léegi nag suma xel ak suma xol jógul ci ñoom ndax aussi dañu ne géejawaay ñu ne géejawaay amul usine amul entreprise mais géejawaay am na fi ay formatrice am na fi ay formateur yoo xam ne nii buñ leen bàyyee xel te jàppale leen te nu mën a génne xale yi ci ndóolte gi nu nekk dinañ mën a génne xale yi aussi ba ñu revenir retrouver waat seen i dignité bokk na ci école bii di Pencum Africa ndax sox sa si yor nii dafa am mérite Euh, dafa am loo xam ne nii dafa rare moom mooy force force de se battre pour lan pour taxawal dara force de se battre pour lan pour que ay nattaangoom di ay xale yu jigéen waroon na mën a jaar ci tànk yi nga xam ne tànk naka su dul noonu la mu jël leen indi leen delloosi leen ci seen dignité te ci loolu lañu ñu gis moo tax école bi dafa nekk école de référence à travers le département de Guédiawaye mais à travers la région de Dakar di daal nekk na témoignage boo xam ne ni franchement maa ngi leen koy baaxee encore une fois di woote ci pencum Africa képp ku ci am doom te gis vidéo bii nii te xammee ma man mii di mu Moussa Mbaye doxuma ci daray caaxaan mais donc di nga fi indi sa doom même bu munut loxoom jotul ginnaawam sax am na nu mu koy arrangé ba war ko mën a jël ba war ko mën a intégré ci circuit bi bu ëllëgee bu génnee war a mën a dem ak dignité ndax dignité rek moom mooy nit. Euh, asalaamaaleykum téléspectateurs yi may seetaan euh, je me présente c'est madame Samb. Euh, maa ngi nekk euh, professeur de pâtisserie ci école Pencum Africa. Euh, waaw vraiment école bi maa ngi fiy doog a ren fi puisque ni Ndeye Ndumbe sama xarit la bu mais ren la am opportunité jàngale fi donc ma di ko remercier déjà ci confiance boobu mu porté à ma personne Du coup je remercier bu baax donc fii daal dañu bëgg li am euh, dans les grands hôtels li am euh, ci restaurant yu magi ñu indi ko à Guédiaway déplacer hôtel yu magi yi resto yu magi yépp yëpp ko donc dañuy def le maximum euh, pour apporter tout ce qui est en ville pas en ville sax lu lu lu nekk ci aduna rek lu rafet rek ñu indi ko ci école bi. waaw ñu gor gor lu rek parce que affaire yi mom ay jaar-jaar la rek échelle la rek échelle la rek ñun ñi jaar nañ ci parce que nous opportunité bi ñu am sax am diététicienne ci école bi am professeur d'anglais am professeur de français ku leen informatique aussi en même temps pâtisserie ak cuisine loolu yépp c'est pas facile parce que nous, ba ñuy jàng di def restauration amuñu woon branche yi ñu am nii yépp te donc comme nous avons na am nañ branche yi yépp ci ci ci ci restauration dama bëgg bu ñu ce tuuti rek ñu si am sa doom nga xamante dafa école. wala nga am ku nekk deful dara ngi lay euh, pour Africa parce que non seulement dina jàng cuisine salé ak sucré mais dina jàng français jàng anglais ak informatique te vraiment la ci ci vraiment merci beaucoup. Ah suis man la madame Ndaw Fatou man ma yor nutritionniste école bi yor len cours nutrition hygiène alimentaire ak techno pour la première année L'école len yor. école bi ah euh, machallah dal lañu wax du mais vraiment formation est fi gis bariwul fokoy parce que d'habitude restauration branche restauration rek la def cuisine pâtisserie techno resto mais fi dañuy ajouter touche nutrition ak hygiène lool mo nek suñ mo ñu différencier ak yenen écoles yi nutrition ak hygiène bi ak euh, technoreso bi pratiquement dal mom moo tax mu gëna am importance mo jox importance bu mag suñu filière bi benen affaire bi moy aussi bi la yokkalee anglais français bi pour nga mëna a débrouiller wu si euh, ki bi en milieu professionnel dañ lay préparer ñun dañ lay préparer sur tous les domaines dañ lay préparer si base restauration préparer la si nutrition parce que léegi boo waxee lekk bu nutrition comment manger il faut nga wax si loolu hygiène aussi en restauration mënoo dem sans hygiène moo tax dañoo dañ ci dugal loolu yooyu yëpp daal pour xale bi apte pour travailler dès que mu génn fii am diplôme day apte pour liggéey. fii jafe-jafe bi ma mën a wax euh, loolu message fort rek bu may wax parents yi ni restauration du du togg kese man loolu rek laay gën a ñaax parents yi envoyé seen élèves fii Pencum Africa nekkul ni togg kese lañ fiy jàng restauration branche la bu ouverte boo xam ni dafa am ay filières yu bëri dafa am ay leçons pour ñu ñuy jàppale si xale yi bu ñu fa nekkee ñu leen wax dañoo war a jàng ay leçons parce que dafa xaw a compliqué comme man matière yi ma leen di jox ay matière scientifique la donc il faut xale bi jàng parce que ay leçon la togg bu deux jours la rek semaine bi donc loolu rek lay wax message fort la bu may euh, porté à l'endroit des parents pour nous jàppale ñu si loolu. bonsoir wa Pencum Africa je m'appelle Awa Diallo élève en deuxième année ma ngi len di nuyu yeen ñepp di len sant wa école bi mom rien à dire franchement bi moy sama deuxième année depuis daaw euh, ak ren yëpp. macha allah def nañ si ñun xam-xam boo xamante ne nii fépp fu ñu taxaw sans diplôme sax moment yi dañuy liggéey ak suñu jàmbaarte ak suñu xareñ def nañ si ñun jàmbaarte boo xamante ne nii ñoo ngi démarrer suñu bopp di liggéeyee suñu bopp te diplôme bi ñëwagul amuñu benn jafe-jafe ñu am tamit ay professeurs yoo xamante ne nii elles sont formidables ñuy encadrer seeni élèves di leen topp di leen gunge bàyyi ñu seen loxo benn yoon. madame Samb madame Ndaw monsieur Fall monsieur Guèye suñu directrice bi nga xamante ne tamit aussi dafa mel ni comme yaay suñu di encadrer ay élèves am conseil wax lu baax topp ñu daal ba ni ñu ñu toppee sax suñu parent yi ñu bàyyi suñu kër sax toppee ñu man boog Awa Diallo dama part personnel man moom dafa ma encadrer ba fu ma taxaw dañuy xam ni kii élève u Pencum la ba ki ma booleeg fii sax ba léegi su ma daf may xool naa man su ma lay xool sax geste madame Sarr laay gis si yow kon nga xam ne femme battante la du bàyyiwul élève am ginnaaw nii waa mbedd bi nii keneen franchement parler mention spéciale à elle parewuñu de dañ koo jël ba pare fi mu nekk nii kay yegg rek moo stop incha allah franchement baale maa ngi gërëm tamit élèves yëpp ñoom tamit franchement ay jàmbaarte lañ suñu rakk yi waa première année ñoom tamit ñu ngi topp suñu ginnaaw di leen wax tamit continuer comme ça ça va aller incha allah. asalaamaaleykum waa Pencum Africa maa ngi tudd Binta Diouf nekk première année maanaam BEP1 en donc euh, maa ngi leen di bu baax bàyyi ma professeur aussi bàyyi ma élèves yi. Ah, ah, li ma war a wax ci école bi mooy ah macha allah ndax euh, école bi mën naa ne formation professionnel wuy nañ ko sax na ndax affaire bi liñ fiy def professionnelle la. c'est vrai que ni maa ngi soog a ñëw ci ci ci école bi maa ngi fi def sama première année mais macha allah rëccu ma fi aussi lu ma lu ma fi nekkee ndax euh, li ma euh, mën a wax rek mooy euh, base bi lu xam loo xamante ni élève bi soxla na ko mooy éducation lu leen ñëkk a jàngal éducation la boo bu maanaam boo nekkee sa kër xamante ne am nga yenn teggin yoo xamante ni nekkoo fu ñoom dañuy ñëw corriger la bu dee da def yenn faute aussi dañ la corriger nii la nii la nii la man daal li ci gën a am solo mooy que éducation ba xam te ne bi nga amoo ko amoo ko woon seen kër léegi am nga ko ci école bi loolu moom ça me va. Euh, su ma doon yokk dara ci école bi mooy que ñun maanaam su maanaam entre élèves yi c'est vrai que ni juboo nañ mais nañ gën a juboo rafetal xol yi xam ne ñun ñëpp benn lañ ndax lii ñuy def ni yombul. li ñu am tey fii ci école bi tey boo demoon benn école mën naa ne chaque mois soixante quinze mille ngay fay donc mën naa ñun sax li ñuy fay sax yeggu sax trente mille donc ñun ñoo war a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax xam ni ñii ñun lu ñu am yomb waa kooku moom amaana ma wax ci moom moom day day day day nekk loo xam te lu may neex la ndax tey su ma xasee ba ñëw ci école bi c'est grâce à elle man moo moo moo moo indi initiative initiative dugal ma ci école bi mais dama siy sant alhamdulilah bu baax a baax c'est vrai que ni maa ngi doon def beneen étude mais lii rëccu moo ko dem naa ba gis ni nekkuma sax commencement bi sama passion passe temps rek laa ko defoon mais dem naa ba xam ne nii exactement lii laa bëgg te franchement maa ngi ko ci gëm bu baax a baax a baax ndax tey su ma demee ba bëgg lii c'est grâce à elle maa ngi koy sant bu baax a baax te moom aussi jàmbaar la ndax euh, royukaay la aussi ku roy ci moom la defe naa ne doo daanu mukk na à chaque fois ñun élèves yi mu ngi ñuy encouragé salaamaaleykum may tudd Koumba parent grande sœur Khadija Ndoye sincèrement école de participer développement pays parce que ñuy dem extérieur pour def nek sudu mais sincèrement école bi parent comme ni euh, à travers euh, à travers émission pour man ñu bëri ñu am volonté pour ñëw indi seen doom fii parce que lii dafa nekk loo xam ni dafay def dafay participer si euh, développement euh, Guédiawaye te fierté la tamit pour ñun si waay géejawaay parce que nit a ngi dem ay Maroc à l'extérieur pour am ko kon bu ñu ko am fii contentement